jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futur Média mbokk yi teewlu xibaaru digg bëccëg bi ponk yi ci gën a fës nee nañ daañu ko jébbal plainte muy bureau bu assemblée nationale ak Modou Diagne Fada loole nag gannaaw bu ñu nemmeeku njuuj njaaj ci am na ci anam bi ñu tabee njiital groupe parlementaire bu ku jëkk politique Modou Diagne Fada nday mbill gi moom nangu ne liste bu 2012 ba moom la daal di fésal foofee ci assemblée nationale li ko waral mboolem membre yi nekk ci liste ba amul kenn ku yëglu ni bokkatoo ca ne day metti rek waaye xeex bi dafay tar daañu ko def ba mu saf sàpp ci wàllu yoon gannaaw loolee sax secrétariat exécutif bu PDS dana amalab ndaje niki tey ci ngoon ganuk xibaar yi na ba Ndiaye la nekk député non inscrit Ndeye Dieynaba Ndiaye maa ngi lay maa ngi lay fay. merci euh, xibaar yi daan wax yi tamit euh, ci Sénégal bi bokk fi mu nii euh, ci kuréel gi bànkaasoo ci mbootaay xeet yi tey toppatoo lépp lu jëm ci wàllu kaaraange gëj na nag ñaar fukki at ak juróom-benn ci tey loole nag doon sas bu rëy ci Sénégal dinañ déglu ci biir xibaar yi njiitu réew mi Macky Sall wax na ci bis bu ñu jagleel wàllu alimentation di dund tey ji lañu ko màggal waaye fii ci Sénégal ca naba ji Civol lañu koy defee ca Matam tomb bu ñu sukkandiku nekk moom mooy wàllug mbay mi loole tamit jëm eh, ci xeex ndool ci àll bi dossier culture ñi ngi ko jagleel mbébét bi nga xamante ni nii cinéaste bi di Jo Gaye Ramata am na ko loole nag aju eh, ci gore cinéma liñ ci jublu nag moom mooy gën a dooleel eh, cinéma africain mbokki xarit yi ponk yaa ngi ni yaatal gi léegi léegi jàngeen jëf ci ànd beeg télévision Futurs euh, Médias niñ ko waxee ci ponk yi parti démocratique euh, bu Sénégal dana yóbbu Modou Diagne Fada ca yoon ak bureau bureau bu assemblée nationale li ko waral nag njuuj njaac la ñu nemmeeku euh, ci liste yi nga xamante ni liste bi nga xamante ni di Diagne Fada déposé na ko ci assemblée nationale Aïda Mbodj nag ne loole du ca dellu gannaaw benn yoon xeex ba dafay tar waaye nañu tabbee njiital groupe parlementaire groupe parlementaire bu ko jëkk politique gi dara dëppoo ci ak yoon monsieur ci micro di Saprera. non Fada ne peut pas être notre président groupe. Abdoulaye Wade. Modou Diagne Fada mënta nekk suñu président groupe parlementaire maître Abdoulaye joxe woon na bataaxal waa bureau de l' assemblée nationale mbir mi dañ ko yóbbu ci yoon ngir ñu neenal ko bu weesoo loolu tamit bureau assemblée nationale mi nga xam ni moo tab Modou Diagne Fada daal di koy def président groupe parlementaire dañ ko yóbbu ci kanam conseil constitutionnel. au niveau de de de de conseil constitutionnel. Aïda doon yëkkati yooye kàddu ni ki démb bu grand bu ko jég politique yi doon dajeeg taskatu xabaar yi PDS wax nañu ko nee nañ dañu delloo gannaaw ci li nga xamante ni soobu nañu ci euh, tey ak ëllëg ayda mbooc la ñu jiital ngir nag euh, mu nekk njiital groupe parlementaire euh, bu libéraux yi dañ ci ànd ak Dissa Prera Mardian. par en tant que président de groupe désigné. Aïda Mbodj sol mbubu président groupe parlementaire liberté et euh, démocratie PDS ak ñi mu àndal taxaw fas yéene jàmmarloo ak Modou Diagne Fada ak Moustapha Niass grand cadre jàpp ne dañoo bëgg a seen groupe parlementaire Aïda Mbodj xam ne ne Modou Diagne Fada deful lenn lu dul jël seen ay signature yu 2012 daal di koy présenté bureau assemblée nationale. parce que les de 2012 que Omar Sarr avait par li xew mooy Omar Sarr dafa déposé benn liste boo xam ne dafa am douze signatures teg ci xamal président assemblée bi nekkoon njiitu groupe parlementaire bi dafay changé douze signatures yooyu la Modou fa Fada jël te yooyu sax yu atum 2012 la woon daal di koy jébbal bureau assemblée nationale bi loolu président assemblée bi mënoon na koo réglé waaye li mu def moo ko tey. Euh, c'était et euh, c'est sans surprise. grand cadre lank ne du reconnaître Modou Diagne Fada ci seen bopp groupe parlementaire ngir xeex nangu seen groupe boobu Doudou Wade di préconiser taxawaay bi député yi war a taxawee. le bureau du président du groupe libéral il faut l'investir dès demain si Fada convoque les 26 que vous êtes vous y allez vous n'y allez pas pour dire ce que vous pensez. vous y allez pour vous bagarrer. Il faut montrer à Moustapha Niass qu'il temps. Autant il avait fait le voyou avec Duboka, autant nous pouvons être des voyous avec lui. Affaire bi, bi du wax. am na ay problème yoo xam assemblée bu ñu ko réglé wu noonu de manière du réglé grand cadre de l' dina déposé benn recours ci bureau assemblée nationale leaderu coalition boobee dañu amal ab ndaje ci ay fan yu néew ngir waxtaanee stratégie bi ñu war a taxawal ngir euh, xeex xeex bi. Euh, Dissa Preira lu jëm ci tuuma yooyu aju ci signature ba euh, Modou Diagne Fada moom wax na ci tontu na nangu na nangu na nag ne liste 2012 ba moom la déposé li ko waral mbooleem tur yi ca nekkoon amul kenn koo xamante ne nii euh, démissionné nga mbaa nga yëglu tur yooyee sax jàpp nañ ci Fatou Thiam Iba Der Thiam Wore Sarr Lamine Thiam leneen muy secrétariat exécutif bu PDS moom tey ci ngoon sax jàpp na amal ab ndaje waxoon nañ ko ganu xel xibaar yi eh, Dieynaba na ba Ndiaye la nekk député non inscrit maa ngi dellu di la nuyu eh, honorable député invitation bi. honorable député laaj bu njëkk bi rek euh, dañuy daal di sëgg kon ci assemblée nationale gis nga ak euh, li xew. waaye euh, li may njëkk a laaj mooy yow wax nañ ni bokkoon nga ci list bu Aïda Mbodj mu nekk nag loo xamante ni mi ngi tukkee ci mbébét bi nga xamante ni so ki matuwaay bi nga xamante ni jël nañ ko muy fi nga bokk muy FSDBJ. waaye ci mujjantal ga yow da nga da ne bokkatoo ci. waaw dama bëgg jërëjëf maa ngi lay ci invitation bi. ndax dina ma permettre ma leeral lu bari euh, question bi nga ma posé léegi loolu loolu nekk na daal loo xam ni mun naa ni amul. Euh, musuma cee bokk list bi nga naan euh, groupe parlementaire bi nga xamante ni moom la ñu am yéene ni ay honorable ay studio daf koy daf koy jiite man musuma sama tur musuñu si bokk boole sama tur man ca début ba ca négociation yi laa fësal sama position ndax xam nga ni. tëbuma rek ni dama fas yéene dugg ci groupe parlementaire wala bi dugg ci bee groupe parlementaire. kon li ñu bi fu mu jógee waa ne sa secrétaire général. moo moo amoon moo yéene moo amoon yéene. sama secrétaire général mi nga xam dafa lëkkaloo ànd ak waa opposition parce que tey moom dafa taxawal boppam comme un opposant te am na ci droit ndax génn na ci Benno Bokk Yaakaar man tam génn naa ci groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar kon dafa ni. bu doon sagoom damay dem bokk ci liste bi nga xamante ni honorable député Omar Sarr moom moo bind liste boobu déposé ko pour créer beneen groupe parlementaire man nag ci sama gis-gis ma jàpp boo gisee ñu génn ci Benno Bokk Yaakaar xëy na dañ fa gisutu suñu bopp ndax la na la Benno Bokk Yaakaar groupe parlementaire ba tëddee woon ci assemblée nationale doyatuñu ba ñu bind lettre de démission génn ci groupe parlementaire bi am statut député non inscrit parce que loolu la loolu la loolu la la règlement intérieur de assemblée nationale boo gisee non inscription ñu indi ko assemblée nationale pour député mën a féex boo toogee ba xam ne man groupe parlementaire bii mënuma gis sama bopp la ma ànd ak ña ca bokk groupe parlementaire bi ma nga am droit ak sañ-sañu ni man de dama bëgg a beru nekk un député non inscrit loolu moo indi non inscription ñu prévoir ko ci réglement intérieur ci biir assemblée nationale ba ma gisee nag man benn boo ko yaakaar gisatuma sama bopp ba ma démissionné fa dama jàpp ni tollaguma ci foo xamante ni sama xel may na ma pour ma dugg ci benn groupe parlementaire moo tax ba ma secrétaire sama secrétaire général Cheikh Bamba Dièye euh, laajee ni ma dama bëggoon nga dem dugg ci group parlementaire bi nga xamante ni député Omar sar moo koy déposé. àndoo ci loolu ànduma ci loolu. ànduma ci loolu ndax nag su may dugg ci groupe parlementaire d'abord man lay njëkk a engagé personnellement te député aussi. am na loo xamante ni loi def ko prévoir def ko teg ko ci député pour may ko liberté ak mu féex mooy mandat impératif député war ko recevoir partem amul sañ-sañ jox ko ko secrétaire général am amul sañ-sañ jox ko ko ba tax na mu nekk benn décision boo xam ne man sama décision personnelle la sama gis-gis la te ma jàpp ne sunu parti politique démocratie moo fay dox te am naa sañ-sañu ni man kat sama secrétaire général ginnaaw lii muy bëgg a te méngoowul ak man sama gis-gis dama bëgg a jàpp sama bopp nekkaat continuer nekk député non inscrit ci assemblée nationale. te ci conséquence ëllëg ndax sa secrétaire général moo bëgg waaye yow yaa bañ. waaw mais loolu dama yaakaar ni tamit am nañ ci droit comme li ma wax rek dama ni suñu parti démocratie ci démocratie lay dox te démocratie moom mooy ku am sa gis-gis wala nga am sa sa sa xalaat nga mun ko wax sama gis-gis mooy dama jàpp ni fi ñu toll nii war waruñu ñu bokk ci benn groupe parlementaire ndax ba ñu génnee ci benn bokk yaakaar yàggul matul sax cinq mois ñu bëgg a duggaat ci beneen groupe parlementaire dama ne sama secrétaire général nañu jàppagum suñu jàmbur nekk député non inscrit ba seet fu yëf yi fu yëf yi di di àgg. dëgg ñaan ni gëdd mu jéggi wànnant xaw mu nu ñu koy waxee waaye man dama jàpp ni lii tey dafa nekk loo xam ni rafetu ci suñu institution. noo ko jàngatee sax juste. voilà ni ma ko jàngatee li xew voilà ma ngoog mooy mooy mooy li xew. li xew ci sunu ci sunu institution bi dafay gën a lëndëmal lëndëmal sunu kanamu institution parce que assemblée national dafa war am yeneen jéego. beneen taxawaay bu mu am ci biir askan bi bu dul ay député di reyante seen biir ay député di xuloo ay député di ŋàññante di di xëcco loolu daal dama ne du rafetal suñu institution ndax askan bi dañuy xaar ci lu bari te loolu lii day tax mu gàllankoor ko kon man ñaawlo naa trop tey que euh, mu am xëccoo bi am tey ci biir institution assemblée nationale dama ni l'essentiel assemblée nationale dañu ni c'est le lieu par excellence du débat démocratique et du d contradictoire ñi nga xam ni ñun ci suñu rôle ci suñu liggéeyu contrôler action gouvernementale dafa am ñoo xam ni dañu ànd ci gouvernement bi ni ñuy doxalee ànd nañ ci kooku majorité bi moo leen di waxal ñi nga xam nag d'accorduñu ci ni gouvernement bi di doxalee opposition moo leen di waxal ba opposition nag jubatul seen biir ñu door ci gis seen ba ci biir assemblée nationale mm-hmm. donc daal vraiment ñaawlu naa trop li am tey ci suñu biir institution bi Mhm. dinañ dinañ wéy mais ñu daal di dérouler tuuti journal bi bokk na itam ci la ñuy des sax muy euh, pencum ndawi réew mi ndax bureau bu assemblée nationale warul benn yoon di jël dogal euh, ci ni ñuy euh, sampe ay groupe parlementaire du samay kàddu maître El Hadj Diouf moom moo ko wax moom nag la mu gis moom mooy Moustapha Niass moom moo nekk ca gannaaw di buum ak di buum mi kon dara dëppoowu ci ak yoon ci noonu sax mi ngi sàkku ci ay mbooj mu daal di dem ci yoon bu ko bëggee dem yoon googee sax am na ndax ay plainte jébbal nañ ko bureau bu assemblée nationale ak Modou Diagne Fada dañ ci ànd ak Cheikh Tidiane Diop. am na ne sax Modou Diagne Fada dem ci Aïda Mbodj. maître El daal di bañ ba tëdd si naaj bi di xamle ne kii di Modou Diagne Fada nekkul benn yoon président bu groupe Liberté et Démocratie avocat cour bi ba tey daal di nekk député ci douzième législature bi moom di xamle ne lii di démocratie dafa sooxe ci mim réew te ki koy lottal jamono jii nekkul kenn ku dul président assemblée nationale. la at bu jot groupe bi day du déclaration ak ña ña bokk ak moom ña ànd ak moom groupe bi mooy tànn président ak vice président at mi jeex na at bu bees jëw na yow Fada nekkatoo président groupe mu ñuy waxee yow di jalloo yow di wax naan damaa bëgg a bokk ñu ne nag comme jaaru ci moom boo Omar Sarr baaxul ndax ci moom nga war a jaar kon mandat Fada moom. fii ba àdduna àdduna jeex la. Ah, député non inscrit bi di xamle ne kii di Moustapha Niass moom lañ ko war a topp te moom sax war nañ koo tëj ndax lii di ay mbuxum ci loolu rek lay dox. bu ñu toppee mbir yi rek président assemblée mu ne ko yóbbu ci yoon ndax xam nga këyit boobu mu génne démb ci guddi ni bureau bee ko euh, délibéré yéen xam ngeen yéen ñëpp ni déggoon ngeen ni bi ñu dajee àllarba dañoo dàq mbir mi ba àjjuma kenn ci yéen mënul ni gisaat na bureau bi dajawaat guddi gi rek président assemblée signé benn këyit ni bu Omar Sarr baaxul kon léegi Fada mooy président groupe. ba tey ci biir ay déclaration maître El Hadj Diouf moom di xamee ne président conseil régional bu Bambey moom su ko neexee mën naa dem fa mbaxane doone benn. seulement ministre de justice mais mën na tëjlu ay nit ndax signature am na ko ko utilisé ne moom moo ko signé tijjalu ko deuxièmement ñii ne dañoo délibéré amuñ ci droit parce que groupe parlementaire du bureau moo koy sos moo koy validé groupe parlementaire mooy tànn bureau. kon bureau mënul ni groupe parlementaire baax na wala baaxul. maître El moom di wane ne farul fenn moom li mu bëgg mooy lii di dëgg daal di feeñ. li ni mel li ko sabab du leen lu dul bokk na ci défenseur lii di démocratie ak lii di république. ñu ne article 22 moo ko sauvé du dëgg. Eh, Cheikh Tidiane Dione ñu di la jaajëfal ñoo ko déggandoo muy kàdduk maître El Hadji Diouf wax nga ko léegi soppoo xiiroo ak soppuloo dara xiiroo ak ŋaayoo gi nga nemmeeku eh, ci eh, député yi waaye également assemblée nationale ndax ni mu doxalee ci dossier bi yow ànd nga ci. waaw ni mu doxalee ci dossier bi dama ni nañu dellu si suñu xel ci leen lenn d'abord président assemblée nationale dama yaakaar ni xanaa nag xam na liggéeyam duma ma ne dama yaakaar sax wóor na ma ne xam na liggéeyam. parce que Moustapha Niass bu ñu ko jeexee lu doy ni institution assemblée nationale mu jiite ko dafa xam la nekk ci biir ak maanaam na mu war doxee ak na mu war tëddee kon dama jàpp ni keroog bi nga xamante ni ñu ngi ubbi session bi di tërë bureau assemblée nationale dafa am député yu ne normalement dafa waroon joxe listu groupe parlementaire yi taxaw parce que d'habitude noonu la daan demee mais loo gis rek situation bu gis rek am na nuñ ko noo xam ne noonu lañ ko war a doxalee parce que dama yaakaar ni tey li am keroog. dafa nekk loo xam ni du faralu di am assemblée nationale groupe parlementaire même groupe parlementaire séddoo nekk ñaar déposé ku nekk liste ci table président assemblée nationale te liste bu nekk ki ñu bind fii nga gis turam ca benn liste ba loo nekk nu doy waar dama yaakaar ni keroog ba ñuy ubbi assemblée nationale session ordinaire bi unique session ordinaire bi président Moustapha Niass mënu woon jël dogal ni groupe parlementaire bii moom moo nekk ci yoon wala bii groupe parlementaire moo nekk ci yoon. mais est tamit euh, ci yoon waroon na nañu yegg foo xamante ne nii njiital assemblée nationale moom mooy tranché comme li xew tey. waaw loolu moom dama yaakaar ni bu tranché it fu wóor la ko teg ci ay texte parce que bu fekkente ni mbir mi dem na ba jéggi dayoo am na ñoo xam ne seen xalaat màcc na ci wàllu ci ci nga xamante noonu noonu la institution yi di doxee. te xëy dama yaakaar ne woo nañu ñooñu laaj leen seen xalaat noo xam ne assemblée nationale noo la war a tëddee et que situation bu mel nii nga xam ne ça sort de l'ordinaire du faral di am assemblée nationale bu teewee président assemblée nationale ña ca war a joxe seen xalaat woo na leen consulter ak ñoom waxtaan ak ñoom. su nee nag bii groupe parlementaire la ñuy jàpp mooy groupe parlementaire bi nga xam ne moom moo war a continuer dama jàpp ni teg na ko fu wóor teg ko fu loolu laa la mooy sama xel bu gàtt man nag dama bëgg a tuuti rek ci. dañu ne nguur gi moo ma ngeem ba moo nekk sama ginnaaw dama bëgg a leeral dara lenn moo ñaara nekk sama ginnaaw ñu koy wax nag ñoom rek la engagé ndax man engage moo ndax du nekk loo xam ne dëgg la li ma li nga xam ne moo nekk sama ginnaaw ñaari mbir la sama conscience ak li tubaab naa sama intime conviction. lu jëm ci euh, beneen mbir aussi muy coalition Benno Bokk Yaakaar. Hmm. bañkat nga. basoon nga leen sax buñ ko mënee tuddee noonu. tey également gis nañ sa benn gis nañ encore sa position. ak Aïda Mbodj lu ko waral. aw ma benn position ak moom sax li war rek moom mooy groupe parlementaire ba nga xamante ni moom la député Omar Sarr déposé dañ ma ci woon ni ma kaay nga bind. ma xamal leen ni man de su ma toll nii sama gis-gis nekkul ci ma bokk ci groupe parlementaire dama bëgg a nekk un député non inscrit bu ma bokk ci benn groupe parlementaire parce que sama loi ak règlement intérieur assemblée nationale permettre na ma ma nekk un député non inscrit loolu rek koo xam ne ñaa ngi ciy xam ne dafa nekk ci biir rek yaa ngi juum te yaa ngi may tuumaal te ngi may dëkkal fu ma dëkkul kon li ma bëgg a wax rek moom mooy. sama décision personnelle la qui n'a rien à voir même au-delà de mon parti politique ndax député nag am na sañ-sañ boobu jël décision la constitution du sous du Sénégal dafa prévoir que ni député. Mhm. waru recevoir un mandat impératif moom mooy parti am amul droit jox ni ko boo demee doxalee nii mbaa nga wax nii. secrétaire général amul sañ bi ak keneen. ñu di la jaajëfal na ba Ndiaye may fàttali député non string jaajëfal nañu la ci li nga ñu wuysee ci la ñu des ba tey ci assemblée nationale muy nag kàddu yu tukkee bi yoon ci ceex Thierno bokkum bu réew mi moom nag nee na dogal bi am jamono yi ak bureau bu assemblée nationale politique képp moom moo ci euh, lalu moom nag euh, li mu gis sax moom mi nga xamante ni moom moo yor euh, kon jokko bu Idriss Seck di parti bi di réew mi nee na nag Benno Bokk Yaakaar ñoo ànd di buum ak di buum mi naka noonu ñoom waajal nañu sax ngir eh, xeex xeex bu metti ndax li nga xamante ni moom la ñuy jànkonteel jamono yi duñu ko nangu tey duñu ko nangu ëllëg Alassane Ba ndogal bi ñu ngi ko tënk ci article 22 bu réglement intérieur bu assemblée nationale bureau bu yees bi ndax liste libéraux et démocrates bu Oumar Sarr numéro 1 déposé woon député bi di Thierno Bocoum bokkoon ci liste bi eh, gis ne mbirum politique moo ko lal. du décision bu ñu bett. ndaxte euh, ñu jël décision bi Benno Bokk Yaakaar la bu sol mbubbu institution maanaam ñu ko jël Benno Bokk Yaakaar la ñu bokk bañ koy jël ñu sol mbubbu institution donc mënul am surprise parce que ñoom aussi dañu nekk logique boo xam ne ne foog naa ne tey sénégalais yëpp leer na seen bopp mooy ñoom bëgguñu opposition da gis ñëpp ñoo xamante ne ne ñu ngi taxaw pour opposer wu ñu ngi xool nu ñu la xëccee suñ la mënul xëcc si ñoom dañu lay xeex te opposition dafa doon loo xamante ne constitution ci boppam moo ko consacré. mu nekk ab manigance bu coalition benn Bokk Yaakaar euh, mu di gis-gisu chargé de communication bu réew mi euh, pour moom euh, fas yéene wu ñu banque benn yoon seeni loxo. réew mi ñu ñoo ko moom te mu ñu seetaan réew mi. benn parti ak benn coalition rek nekk fi di def lu leen neex gis ngeen oppo gis ngeen assemblée nationale nu ñu ko def léegi. proposition de loi bu tax ba situation bii am mooy proposition bu ñu doon xeex yàggul na leen c'est une loi scélérate et liberticide moom moo indi situation bi parce que proposition de loi moo imposé nit ñi pour parce que su woon proposition de loi nit ñi dañuy ku ne day day génn fu ngay génn def sa groupe parce que par affinité politique la ñu wax. dafa bu ñu am cadre boobu. dina regrouper wu dina réunir wu pour ñu xam ban décision la ñuy jël si lii am nga xamante ne ñëpp xam nañ ne forfaiture la. Euh, cadre boobu su dee si su réunir ba décidé dinañ xool ban suite la ñuy joxe si loolu. cadre de concertation bi ci wàllam fas yéene teg ay xalaat ngir jàmbarloo ak nguur gi fi nekk. cadre boobu dafa dafa dafa sécréter ñaari décision benn décision bi mooy ñu def benn front pour la transparence et la régularité du processus électoral maanaam loo xamante ne. Euh, suñuy jëm ci élection lépp leer parce que gis ngeen lu fi amagum euh, nga xamante ne def nañ sax évaluation boole wuñ ci opposition bi muy guléet donc yu mel noonu la ñu bëgg mu mu dakk beneen bu ñu ci bu ñu ci yokk mooy def un grand groupe de l'opposition. ci ab communiqué bu Omar Sarr xamle maître Abdoulaye Wade wax na ni àndut ak Modou Diagne Fada njiitu groupe parlementaire bu libéraux et démocrates bi ñu falaat ab laaj samp nag ci avenir groupe parlementaire bi. Alassane Ba ñu di la jaajëfal Sénégal kon bokk na ci kuréel gi saytu lépp lu jëm ci wàllug karange te bànkaasoo ci mbootaay xeet yi loole nag ñi ngi ko amal gannaaw ab vote boo xamante ni di def nañu ko niki alxamis ji yemook fukki fan ak juróom ci weeru octobre loole ñu amaloon ko ci ndaje mu yaatu mi nga xamante ni nii mbootaay xeeti amal nañu ko njiitu réew mi Macky Sall nag àdduna ci nee na lii ab sas la ci Sénégal ndax dina tax mu mën a toppatoo yu bari waxit ci lu bari jëm na ci wàllu kaaraange wàllug euh, démocratie loole yëpp nag daañu ko ñoŋal waxtaanee ko ca conseil de sécurité des nations unies ñu teewlu ay kàddoom moom jiitu réew mi. nous sommes le septième sur 128 pays. contributeur de téeméer ak juróom-ñetti réew yi nga xamante ne dañuy dugal seen loxo ci wàllum kaaraange suñu réew moom moo daal di jël juróom-ñaareelu place bi ah, ci xayma nag mun nañ lu toll ci ñetti. junni ak juróom benn téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn élément de défense la ñu daal di yóbbu ci réew yu bëri loolu sax mën nañu juróom ñetti mission la ñu daal di dem lii nag ñu am ni ki tey daal dina nekk loo xam ne war naa mën dugg ci taarixu réew mi waaye liñ ci mën a jàpp rek moom mooy ci wàllum diplomatie la te loolu ñun yaakaar nañ dinañ ko wéyal fi nga xamante ne moom mooy ah, ci àdduna uh, wërngal këpp loolu nag xëy na suñu gëm-gëm la ak liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey uh, rawatina ci wàllum jàmm ci wàllum salaam ak lépp lu jëm ci wàllum euh, ak ak yelleefu doomu aadama ak waxtaan ak saafo bi nga xamante ne mu ngi am euh, ci diggante askan wi rawati nag ci wàllum cosaan ak aada euh, gis naa ne loolu moom moo sabab lu ni mel occasion bi nag war nañ cee gën a war a mën a wane suñu bopp ndax dafa yëgsi ci jamono joo xamante ne ci conseil bi li muy gën di yëngu moom mooy lépp lu jëm ci wàllum Afrique ndax soo xoolee téeméer bu ne juróom-ñaar fukk yi mbirum Afrique kese la ñuy waxtaane mel suñ demee tey bi indiwaat Euh, suñ ñetteelu mandat duñ def lu dul rafetlu ko te daal di fexe daal naka la ñuy wéyalee euh, suñu liggéey ci fànn woowu. ñu daal di wax ci bis bi ñu jagleel wàllug euh, dund tey ji lañu ko màggal fépp ci àdduna bi fii ci Sénégal nag euh, ca Naba ji sivol la ko màggalee Naba ji Civol nekk ca diwaanu Matam loole nag tax na ba mbooleem ñi nga xamante ni ñoom ñooy yëngu ci wàllu mbay amal faab ndaje ndax tomb bi itam laal na wàllu mbay nu ñuy fexe ba dooleel ko ak it jàppale àll bi xeex ndóol loole tax na ba ñi nga xamante ni ñoom ñoo seq kon ndaje boobee waxtaanee ci lu leera leer ñuy xool nag nu ñuy def daal euh, mbir yooyu yëpp ñu gën koo dëgëral ci Sénégal diwaanu Matam dañu fay fekki Ali Bandel li ñu nar a góob mu nar a tukkee ci campagne agricole nawet gi ñu nekk kat dina motandi li nga xamante ni moom la Sénégal soxla ci wàllu boobu couverture céréalière gannaaw nawet gu barkeel lool ak engagement ay baykat mbébét bi njiitu réew mi amoon ngir suqaliwaat mbay mi mu ngi ci ay tànkam loolee la ñu mën a jàpp ci conférence scientifique bi ñuy amal ci maatam jamono yi muy jëm ci waajtaayu bëccëg bi ñuy màggal wàllu alimentation. nawet gi mooy gën bu nawet bu daaw incha allah. loolu ci xay def ngi ci liggéey liggéey bi sax d'ailleurs mu ngi ci. def liggéey googu yëpp ñu xool xayma ñaata lañuy ñaata nañu am ci production def bilan bilan céréales yi donc yaakaar nañu ne ren ji ak li nga xam ne tey ji nawet bi demee na comme nii li jëm ci dugub li jëm ci mboq ak li jëm ci ci ceeb lu jëm ci sorgho yaakaar nañu ne vraiment dinañ am production yu baax a baax a baax. ci conférence scientifique bi nga xamante ni ministre bi di Anta Sarr Diacko moo ko jiite woon maire commune bu Nabadji Civol fi mbir yi nar a amee kat rafetlu na réalisation yi nga xamante ni ci ñaari at yi dem nekk nañ ko ci biir commune bi. fii commune Nabadji Civol 2012 700 hectares rek lañ fi irrigué woon. président de la république ak pro différents programmes yi mu yore yëpp dinañ am deux mille cinq cent hectares yoo xam ne irrigué nañ ko ba pare. léegi nag loolu bu amee dañuy produire à peu près dans l'ordre fukk ak juróom junni tonu ceeb dinañ ko béy fii seulement ci commune Nampadji Civol léegi boo demee ci vallée bi boo demee ci boolu toox yi population bi yëpp mu ngi foofu liggéey. fanweer ak juróomeelu édition journée mondial de alimentation bi nag dañ ko parrainel PADER di projet bi nga xamante ni FIDA ak gouvernement bu Sénégal ñoo ko financé te ci diirum ñetti at yi ñu nekk ci diwaanu Matam seen ay réalisation bëri na ba nga xamante ni seen réalisation bëri na bi ba nga xamante ni baykat yi ak sàmmkat yi nga xamante ñoom la ñu lëkkaloo la rafetlu nañu lool seen jéego ci biir gox bi. Ali Bandel ñaa ñu di la jaajëfal xibaar yi ñeel njàng meek euh, njàngale mi nguurug Sénégal euh, dafa war a jëfee ay digam su ko defee nag njàng mi euh, bañ a am benn gàllankoor ci at mi ñu ne loole nag di kàddu Moustapha Segnane nekk ñetteelu vice président bu grand dafa ñu teewlu ko ak Cheikh Tidiane Dione parce que ñu ngi ci seen dëgg parce que li ñuy laaj lépp ñoom ñoo ko moom xëy na loolu moo tax borom réew mi di président de la république yëg ne moom bu ci duggut làmbaay mën naa ñaaw moo tax mu woo grand cadre pale woo ñu ñu toog waxtaan ak moom. waxtaan bi aussi am na ay proposition yoo xam ne def na ko wala sax bu ñu neexee ñu ne am na ay engagement yoo xam ne def na ko point yi ñu doon laaj yëpp. muy bor suñu diggante ak ñoom yëpp engagé wu na ne dina ko jëmbal dina ko taxawal jox na ay directives ñi nga xam ne ñooy ay ministre am ak ay directeur am ne yooyu yëpp nañ ko jëmbal muy problème mu habitat social ci ZAC yi nee na nañ ko libéré yëpp nañu libéré ZAC yi disponible balaa 31 décembre bu dee ci acte administratif yi nee na acte yëpp nañ ko baral na gaaw génn balaa 31 décembre bu génnee it au mois de janvier képp koo xam ne am nga droit ci alignement nañ la aligner sa alignement salaire mu commencé feeñ ci sa bulletin de salaire lu jëm ci njàng mi ba tey conseil des ministres bi ñu amaloon euh, ci àllarba bi euh, weesu euh, njiitu réew mi Macky Sall moom nag daal dinay junju ne daañu amal ay élection de représentativité loole nag jëm ci wàllu syndicat yi aju ci wàllu njàng mi Mamadou Diouf bu CSA ne loole yëpp dëgg la waaye nguur gi nag faw loole mu taxaw ci ngir nag ñu amal ko te njuuj njaace du ci am ñu teewlu ay kàddoo moom Mamadou Diouf bu secretaire général bu CSA ci micro Aminata Mbaye Euh, euh, rafetlu nañu xalaat boobu te dañuy jàpp sax xet xel euh, mbir mi du nekk ndax moyen am na wala moyen warul am waaye nguur gi bu xesee ba jàpp ñun ñu jàpp ne lool lu mën a nekk la nguur gi war laa mën a génne moyen ngir mu am kon loolu dafay yombal waxtaan loolu dafay yombal diisoo ndaxte itam laaj na booy diisoo ak nit nga xam ndax ñi ngay waxal ñooy wax ci turu jàngalekat yi wala déet kon ñun rafet nañ loolu waaye nag dafa am loo xam ne itam nañ ko ñaan nguur gi euh, bu ñu bu ñu jëlalee wut jël matukaay yëpp ñu ñaan ko itam bés bu nga xamee ne mu ngi koy defar muy def élection yooyu mu bañ cee boole benn par parloo ndax li nga xam ne moom la ñu soxla ngir élection yu am njëriñ mu nekk élection yoo xam ne jaar na yoon def nañ ko ak dalum xel moo xam ne dina tax ku nekk ku ci génn rek ñu xam ne liggéeykat yi ñoo la wóolu jiital la mën ngaa wax ci seen ñu wéy ci nga xam ne mooy sa kàddu Mamadou euh, Diouf doon yëkkati yooyee kàddu ci bi ñuy amal ab conférence di ndaje mi nga xamante ni ñi ngi ko doon seq ak taskatu euh, xabaar yi dañuy wax ca leneen euh, fële la jëm ca kokki ak ay bis yoo xamante ni jagleeloon nañ ko askan wa ñu saytu seen yaram te fayu ñu dërëm ci wàllug wér-gu-yaram loole nag tax na daal ba ñu gis fa ay jàngoro yu bari lu ca mel ni malnutrition maanaam ñoo xamante ne nii anam yi ñuy lekkee baaxul waaye tamit am na ay feebar yoo xamante ni gis nañ ko ci gone yi naka noonu euh, kon lu toll ci ñaari fan la ñu jagleel ko euh, kon askan way yeewoo foofee ca kii ña ko amal nag euh, di cadre yi nga xamante ne bokk nañ ci benn parti foofu waaye it ay docteurs yoo xamante ne demoon nañu fa ngir nag yegge seen yéene na Fall ci diirub ñaari fan askan wi yeewoo fii ci diwaanu kooki ñoom faj nañ leen may leen ay garab ca ñu dara. man mi dama amee woon bëñ lu mat ay at mënuma koo dindi léegi laa ko dindi ji bay dugg ñi ñu fi indi woon garab yi nga xamante ne si am nañ fi jot nañ leen kaa may ñu ngi leen sant di leen gërëm daal ndaxte bu ñu ko doon jënd day seer lool parce que ñu moyen bi moo tax bi ñu déggee gratuite bi ñu daal di. lu jëm ci wàllu paj mi kuréel gi di global santé sud développement moom moo ko yoroon. am nay spécialité de médecine bu nekk mais bàyyi nañu seen programme ñu weekend foo xam ne mun nañu jot dara ñu bàyyi ko pour ñëw xalaat néew doole yi. faji leen consulter leen ba pare faji leen. ci consultation yi nag jàngoro yu bari te wuute nemmeeku nañ ko ci askan wi fii teewoon. pour ñi am problème dënn respiration am na ay feebar ñuy gis tamit si jigéen yi nga xam ne dañu am problème surtout xale yi. ñii di am ab problème nopp wala problème gémmiñ tamit bokk naa ci consultation yi bokk naa surtout si feebar euh, mag yi ñi am tasion ñi am jabet ñii di am yeneen feebar mag. xalaat bi nag mi ngi juddoo ci responsable APR yi nekk fii ci diwaanu Koki. lii dafa bokk suñu plan d'action comme li président di wax rek dimbali président de la république ci couverture maladie universelle noonu dañ ci bay suñu waar ba mu mat sëkk moo tax ñu di ko def. jàppale population bi. ci ñaari fan yi consultation gratuite yi nag bu ñu defee ab xayma lu toll ci junne ak juróomi téeméeri doomu aadama saytul nañ leen seen wér-gu-yaram may leen ay garab ca fayuñu dara. ni ngeen ko xamee yegsi nañ ci xibaaru tàggat yaram yi dooree ko ak championnat local bu football loole nag dana tàmbali juróom-ñaari fan ci weeru novembre jàpp ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin saison boobe nag ñi ko ngank wax nañu ne daañu def seen kémt lay kàttan ngir nag ab réussite am ci bu ñu sukkandikoo nag ci nga xamante ni moom mooy Amsatou Fall nekk directeur exécutif bu ligue professionnelle bu football nee nañ nag dinañ noppaliku ak diir rek bi nag euh, aju ci footballeur yi nga xamante ni seen at tollagul euh, ci ñaar fukk ak ñeent ñu teewlu ko moom am Amsatou Fall ci micro Cheikh Tidiane Dione. ko président Sayer waxee donc cette année incha allah rabi avec le faux départ qu'on a par rapport ak ak équipe nationale yi nga xam ñooy joué euh, donc ren ji moom nee nañu incha allah rabi daal le 7 ano président annoncé na ko le 7 incha la ñu commencé le championnat mais duñ ko commencé comme habituellement nuñ ko daan defee par le trophée des champions dañ koy commencé par des journées je pense que avant CHAN bi di commencé daañu daañu def au moins quatre journées avant avant le début du du CHAN U23. Euh, ce qui fait que maintenant le trophée des champions nga habituellement nga xam ne moo daan débuté saison bi dañuy bàyyi ba biir CHAN bi dana am ay trêve ci biir trêve yooyu ñu def ci CHAN bi et incha allah rabi defaale ci également sargal foot. et dans par le daan def da nga gis des fois Dakar am cinq matchs en L1 deux matchs rek dans les région wala mu am cinq matchs euh, en L2 deux dans les région ce qui fait que des fois euh, avec. comme euh, Demba Diop rek la ñuy joué et exceptionnellement évidemment Léopold Sédar Senghor on a fait en sorte que tirage bi euh, Dakar maximum trois matchs lay am gannaaw football bool Sénégal dafa war a def kéemtalaay kàttanam sukkandiku nag ci raaya bi nga xamante ni am na ko ci wàllu basket ñeel soxna yi ngir nag gën a ñoŋal basket ci diwaanu Sénégal loole nag euh, sunu ki nga ki ko xamle mooy Serigne Mboup Serigne Mboup ma nekkoon njiituk euh, njiital CNBS ba woon moom nag sunu gaynde yu jigéen ñi demoon nañu ko seeti nag ngir euh, wan ko raaya bi nga xamante ni am nañu ko ci championnat d'Afrique yi weesu gannaaw loolu moom moomee waaye nag di Serigne Mboup sax jox na leen koppar xayma nañu ko ci ñaari million dañ ci ànd ak Pape Fara ñi ngi Massayer Ndiaye. enveloppe ñaari million moom la ñu jagleel nag gaynde yu jigéen yi jël coupe d'Afrique ci basket bi ki nekkoon président bu comité de normalisation bi di rafetlu bu baax a baax yëg gi nga xam ne joueurs yi def nañ ko indil ko coupe bi. mbégte la mu mag moo xam ne xale yi ak seen encadrement technique xalaat nañ ko. parce que nag dëgg-dëgg bi ñu doon liggéey aussi dañ doon liggéey ndax que réew mi moo ko soxla woon euh, gouvernement bi wóoluñu teg ñu fi mu mission bu metti mais ñu jël ko mais rafetlu nañ ko d'abord parce que ñoom xalaatal nañ ko seen bopp loolu aussi wane na ni li ñu bëggoon ci basket bi mu dellu si nekk benn famille ku nekk xam mérite ku nekk loolu ñoom wane nañ ko. ñu jàpp ne yoon la gaynde yu jigéen yi ne liggéey bi mu ngi tàmbaleeg CNBS ci ndaje boobu sax ñoom ñuy delloo njukkal ancien directeur technique national bi di fay Pouy. Serigne Mboup nekkoon na fi euh, président comité CNBS bi donc honneur la aussi pour indi ko coupe bi gis nañ ñoom liggéey bi nga xamante ne def nañ ko si basket bi et donc euh, ñoom jàpp nañ ci donc bu ñu gagné lii leen ko tonton Pouy Faye moom euh, def na liggéey bu baax parce que ñun avant ñuy ñëw sax ñoom moom la ñu ëpp li ñu doon waxal donc mu def liggéey boo xamante ne sax c'est vrai que ay temps bëriwul woon ñi ko doon def donc ñu ko si remercier di ko wax nekk liggéeyam moo tax aussi ñu yegsi fii ñu yegsi. coupe bi gaynde yi jigéen ñi jël nag dafa war a tax ñëpp dugal seen loxo ci wàllu basket bi rawatina ci école yi ak collège yi. gis nañ ne ñëpp d'accord nañ ni problème mu Sénégal pour développer basket sport de façon générale mooy ñu dellu ci lycée yi may kontaan loolu bi ko ministre éducation ministre des sports waxee barki dem loolu nag pour mu dem xam nañ ne am nay programme yu mag comme NBA yoo xam ne dañuy dem ci lycée yi xale yu góor yi ak jigéen yi am programme spécial. daje bi nag ak ancien président bu CNBS ak gaynde yu jigéen yi loolu nag dafay wone ne transition bi jaar na yoon ci diggante CNBS ak fédération bu bees Pafara ñi ngi niñ ko gisee sunu gaynde ba ñu ñibbisee ba tey ku ne di leen sargal di ay personnalité ci wàllu politique euh, caada waaye tamit euh, ci wàllu sport gis nañ tamit ay responsable di leen sargal waaye nag ñoom la ñu gën a bëgg tey moom mooy artiste bi di Youssou nduur nag daal leen may ab soirée euh, de su ko defee nag ñu bànneexu seeni fansit naka noonu maam jooju Diouf moo wax ci seen kàddu bi ñu ñëwee ba léegi Sénégal ñu ngi ñuy wane kontaan nañu que lii neex na gañe dafa neex yëkkati sa raay réew aussi dara dàq ko te sénégalais yi ñëpp ñu ngi ñuy woo fu nekk di ñu di ñu di ñu dimbale di ñu euh, wane félicité donc ñun tamit ñu ciy profité si occasion bi di woo ki nga xamante ne à fois suñuy yéegee bus yi di dem joué ji dañ koy déglu mu ñuy ah, si ay way à travers ay waye mu ñuy encouragé di ñu yee si lu bari donc muy monsieur Youssou Ndour on espère que dinañu tëggal benn soirée may ñu ko comme ça ñu woo suñu fans yi woo suñu famille wëpp Sénégal bi yëpp donc ñu ngi koy lancé appel bi j'espère que dina ko dégg mu xam ne yoon yi aussi ñu ngi ay fansam lañ bëgg nañ mu tëggal ñu soirée may ñu ko ñu woy ko Sénégal yëpp kontaan egsi nañu ci euh, dossier bi ñu jagleel ko caada bi nag mi ngi aju euh, ci euh, festival cinéma cinéma gore gore cinéma festival la nag boo xamante ni kii ko sabab moom mooy Jogay Ramata li lu mu ci jublu rek moom mooy gën a dëgëral wàllu cinéma ci Afrique gën koo wane lekk àdduna bi loolu nag mooy mbébétam ndax la mu nemmeeku sax mooy ci diwaanu Afrique dañu ñàkk lool ay salle de cinéma waaye tamit léeg-léeg du ñu wane film yi nga xamante ni fii la fekk baax ci Afrique loolu nag moo nga xamante ni moom mooy festival boobee nag moom na ko gisee euh, bilan bu jaaxa yoon la dañ ci ànd ak Aïssatou Paye Fall moo signé dossier bi. Gorée festival tëj ay buntam ci diiru ay weer nit ci mën a seetaan ay film ci booru géej peex gu neex di leen upp mu mel ni concept bi dafa nar a dekkaliwaat tuuti septième art. et je pense que en termes de promotion du cinéma africain et même du cinéma international nous avons eu droit. à de grandes prestations et à de grandes projections euh, de films africains, pour tout dire. Et face à un public euh, assez cosmopolite, et je pense que c'est ce qui est recherché dans le cinéma. Kiko Sos rafetlu liggéey bi donte am na lu bëri lu des. Ah, jëlee ñaar ci xam-xam ngir mën a gën a yaatal géew gi ah, ci at bii di ñëw. yaakaar naa ne ci njëlbeen fu nu fu nu bëggoon dem euh, ci étape bi ci six première mois yi euh, bëgg a wane ne que cinéma mën na jur euh, développement nu koy waxe wala jural leneen askan askan wi gaak loolu moom egg nañu fa. communication bi itam naam jàll na réalisateur u Carmen bi dollu si ne war na gën a jëm kanam. neex mooy y a de. journalistes yu bare beaucoup de journalistes pas seulement parce qu'ils étaient journalistes mais en tant que citoyens euh, ñu euh, qui ont trouvé que c'est une bonne chose ñu yaakaar ne lii lu ñu def lu baax la ils ont tenté avec leurs possibilités euh, même si c'était pas quelque chose qui était non annoncé hein de l'intégrer et ça c'est le plus important léegi de manière plus organisée loolu lu des la mais yaakaar naa dina ñëw ci at yi di ñëw. initiative bi sax mairie bi gis ne nimbal lu mag la indil Île de Gorée. quand vous menez des activités culturelles telles que le cinéma sur le plan ça des impacts économiques quand même que qui ne sont pas négligeables. et aujourd'hui euh, l'impact économique en termes de de réceptifs à Gorée mais également euh, de restauration. etc ça permet quand ay film sénégalais ak africain yu bari nit ñi mën ko seetaan festival bi nag ñu fas yéene ku amal at gu nekk ci Île de Gorée bi nga xam ne patrimoine culturel bu mag la. jaajëfal nañu laay satu payfal yéen ñi fare woon ci machine bi ak ñi jàpp ci xibaar yi bi mu sotti canta ak ngërëm euh, ñeel na leen rédaction bi dina fi teewaat 19h30 ak 20 euh, ci yeneen jotaayu euh, xabaar laata ñuy tàggatoo kon mu mel ni sotti na muy nag xët yu njëkk yu yéenekaay yi dañ ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye cirë ngeen jëf giri moo xo yaa ngay bëgg a tàkk ci biir parti démocratique Sénégal bi leen observateur Modou Diagne Fada mi bureau assemblée nationale ne mooy njiital groupe parlementaire libéral ak démocratique loolee la waa Kër Laay Wàdd yi mënta muñu démb ñoom waa PDS ab janook taskatu xabaar yi la ñu gonte lu ñu fa yàkkul Fada Niass ak Macky rek dañu ko fàtte nee nañu dañuy plainte Modou Diagne Fada ndax dafa sàcc seeni signature def cee tappale dugal ko ci ay machine maanaam da koo scanner yóbbu ci assemblée nationale ci loo xam ne ñoom yëguñu tiinuñu faux et usage de faux la ñu koy toppee am ci assemblée nationale waa PDS ne pexey Macky Sall la ak yu Moustapha Niass Modou Diagne Fada nañu ci l'observateur nañu ma ci keccet ba ma set wecc waxewu ma ci seeni tur waxewu ci turu parti bi populaire nañu biccoog mbaalo bi am ci kan moo jiite groupe parlementaire libéral ak démocratique ci diggante Aïda Mbodj ak Modou Diagne Fada waa parti nañu ca yàq lu mel ne xeme Moustapha Niass ak Macky Sall kii di Moustapha Niass na nañu président sàcc la président voleur Aïda Mbodj ci pangañangum parti démocratique Sénégal nañu ci journal bi xeex ak defante ci sama deret la nekk xeex du bàyyi dara dinaa ci raak dinaa ko xeex ba mu jeex baa ma jeexal damay plainte Modou Diagne Fada bu ma ca noppee dem ca conseil constitutionnel kalaame ji fa li bureau assemblée nationale dogal ci groupe parlementaire libéral ak démocratique ak ëkk faalewul saamaan bu ko riisu yër leen enquête yéen a kaay Abdoulaye Wade sóobu na ca bataille juridique ba noonee la ko journal bi bindee yéen a kaay bi nañu ginnaaw bi assemblée nationale gàntalee listu Omar Sarr sant Modou Diagne Fada Sud Quotidien ñu fi ñu nekk ni kay waa PDS wàcc nañu ba jekk nammuñu dara namm nañu seen i ngànnaay dank seen i kurpañ fanaanal Modou Diagne Fada nañu ci journal bi fii yëpp mënoon nañ fee bañ a yegg si dañoo bàyyi ba béy wéy mbuus ñu soog cee nekk di dab dabaatal fekk booba trop tard maître Alaaji Amadou bu Parti démocratique Sénégal nañu ba tey ci xët mu njëkk Sud Quotidien benn groupe parlementaire lay reconnaître ci assemblée nationale di groupe parlementaire bi ay bi mu ko neex ko mu bàyyi ko fi dem taxawal waar wi nekk ca di bàyyal boppam Modou Diagne Fada jamatina Abdoulaye Wade beneen paakab ginnaaw grand place xëy di laaj ana kuy ñori mbaraanum kiir laaya mu Modou Diagne Fada mu di immunité nañu fa sëkk avocat bi député bi maître Aladji Diouf ne ñu kii di Modou Diagne Fada ak li mu def manes da ko yóbbu ca yoon ko faux et usage de faux ndax gaa ñi nee nañu daa sàcc ay signature yi jàmbur ca des di Moustapha Niass njiital assemblée nationale maître El Hadji nañu lu ñu def lu dul yóbbu ko ci kanamu haute cour de justice mu àtte ko rek yàq nañu wax ja ci populaire El Hadji nañu fa ñoom ñaar ñëpp di Moustapha Niass ak Modou Diagne Fada la ñu war a yóbbu ci kanamu haute cour de justice ñu àtte leen fa beneen avocat di maître Abdoulaye Babou ne waa doole maître ba bu nañu amul gaañ yi dañoo salfaañ règlement intérieur ba Déthié Fall mi président bu parti réew mi teewaloon front bi ca ndajam gaa yi parti Sénégal ga woon démb nañu ci journal bi dogal ba lalewul ci benn yoon gaañ yi dañoo def lu leen neex rek ba tey ci l'observateur El Hadji Malick Gakou grand parti am na fa grande interview waxtaan wu yàlla fa séq ak Adama Dieng bu journal bi journaliste bi laaj ko ne ko gisoon nañ di seeti Karim Wade la bu nekk ci moo tax ma dem seeti dara nag baayam Abdoulaye Wade musuma yëg jàpp ma jàpp ak cër bu ma jox def ma ne doomam moo tax ma bàyyee ko moo tax bi doomam nekkee ci jafe-jafe ma xam ne sama frère la ma dem seeti ko ñu seeti ñun jour de sport mi ñëw ak ñun ci équipe nationale bu Sénégal ak ñetti entraîneur yoo xam ne daanaka ñoo bokk doxaleen mu di Alain Sires Amara Traoré ak Aliou Cissé mi fi nekk tey yéen kaay bi nañu soriantu wuñu lu bari ne Alain ci juróom-benni max fanweeri suwar ak ñett Aliou Cissé ci juróom-benn Pape Diouf ma woon ci Olympique bu Marseille ne ñu ci stade yéene kaay lu ne mën nañ ko toppee Aliou Cissé ba mu des mi ngi wër ay pexe. ñu di la jaajëfal Mamadou Mohamed Ndiaye jaajëfal leen yéen it rédaction bi dina ñëwaat 19h30 ak 20h ci yeneen jotaayu xabaar.